yonent farataal na ko ci bésab korite kenn ku nekk saa saa mooy ñenenti muut ci muutam yonent ba sallallahu alayhi wa sallam ku nekk nag war na la góor ak jigéen ndaw ak mag góor ak jaam waaye nit mooy génneel boppam génneel képp koo xam ne moo ko war a dundal ci yoon ak jege ñaare waral ko walla ak dencante wala ak moomeel ngi góor ngi rey génneel bopam ak doon ju ndaw ju géwén tëgut ak jabaram ak ko xamne ne moo ko élif muy góor mu jigen ñoom ñëpp yow yaa war a nattal mu dem koor yow nga xam ne yaa waram ko gi ñu ko na tan ñu koy génne nak ci mo sa ri ñi dundé chaer wala sultu wala ceeb wala dugub weer wala dugub ceegu <coughs> wala tàndarma buñ <coughs> ko jënat rek doy na mu dem koor ci ñam rek saayir wala xamoo mooy fariñ bi wala dugub wala ceeb wala sax fromage boo te nattee ci fromage it doy doy <coughs> kenn ku nekk nag saa saa mooy ñeneen ti yonent bi sallallahu alayhi waxoon saa nag mooy yonent yi muut jamono yonent yëpp loolu la ñuy natt mu dem ko war jamono moo fekk na ma arrêté nag tànn ma ji wax samra mu ne benn ca mat na ñaari muut ba ku ca ñaari muut rek am nga saa loolu ittihaadam la waxtu génnee mu dem nag loolu gannaaw buñ jullee suba ci bés a korite balaa ñoo dem ca julleekaay ba ba warambal <coughs> nañ nag bu fekkee ñu ngi koy sarax teewuñ ci barab bi nga jiital ko ñaari fan maanaam balaa ñoo wari nga génne sa mudam koor yónnee ko ñu nga xam ne ñoo cay ñoo ca su fekkee barab bu nga nekk xamut ñoo xam ne xëy nañ ca moom daal dañ ko jox koo xam ne xëy na ci bi bi ci gëf keroog ba bi ci gëf korite ba daal koo xam ne aajo na jëm ca moom lañ ko jox du dee duur miskin du dee duur miskin sax <clears throat>